Bara euh, tey euh, je pense que ci la am attend bi ñu tey ku mel ne Fadilou Keita ak léegi gis naa waa Pastef yi di ko di ko wax man mine de rien ça fait un an euh, mais ça doit être très long pour lui parce que vraiment nit comme li Souleymane di wax ah bi ñu koy tëj aussi c'est sur la base de propos tenus loo xam ne ñu bëri jàpp nañu xëy amul gravité mais benn cas ci rek ci cas yu bëree bëri en 2023. waaw jërëjëf Mourou fa ngay fa nga fa nga tàmbalee sax mën nañ fa tàmbalee. jël kaawu Fadilou Keïta def ko comme un exemple de l' ensemble de ces euh, centaines wala de ces milliers de jeunes yi nga xamante ne ils sont dans les dans les prisons sur la base d' expression bi nga xamante ne mooy seen opinion euh, Fadilou Keïta ça fait un an man mënuma concevoir sur un an ñu ne une personne boo xamante ne dafa tenir des propos yoo xamante ne juste dafay wane inquiétude bi nga xamante ne moom la am sur la disparition de quelqu'un qu'il considérait comme son frère même bu rekkee duñ ne frère de sang mais jaar-jaar bi ñu am mu jàpp ko un frère ñu ne un an téye ko si mënuñ ko si juger mënuñ ko si wax fu mu taxaw mhm. parce que dañu l'impression que on est dans xam ne on est dans une détention perpétuelle on sent que tout le monde peut être détenu de manière perpétuelle sans pour mooy loolu mooy grave et c'est ça le recul le recul démocratique bu fi bu fi bu fi yàgg am fan yi damay lire euh, les mémoires du juge Ousmane Camara tuddee ko mémoire de juge d'un juge africain. Mm-hmm. ay jamono dans les années soixante soixante yëngu yu mel ni amoon na ci si wàllu politique mais dañu jàpp ne ñenn ñi nga xamante ne ay militants de base la ñoo xam ne dañ leen jàpp pour mais rapidement dañ leen doon jugé. Mm-hmm. rapidement. mais mais mm-hmm. mais mais jeunes yi nga xamante ne ñëpp jàpp nañ leen mais nañ leen jugé génne. parce que bu fekkee ñoom amuñu xolu ne ñii sur la base de de li fi am ci politique yàgg fee am. te lu mel nii yàgg dafay am parce que ñun on était là le 23 juin 2011 man dama koy fàttali may fàttaliku ñu bari ñun le 23 juin 2011 régime bi dañu wax ne manifester leen mais yem ci barrières yi bi ñu provoqué dañoo toj barrières yi ne dañuy dugg ci biir assemblée ne dañuy génn assemblée bi mm-hmm. ñu bañal ñu ko ñu dugg ci biir dëkk bi dañoo tojoon parce que expression la benn mécontentement bu ñu amoon mais c'était une question politique et la démocratie sénégalaise a toujours réglé ses problèmes politiques en en en en dans la dans la dans la concordance dans la la dans dans en trouvant des solutions politiques mais ce n'est pas une judiciarisation accrue de la de la vie politique le régime de Macky Sall dafa indi une judiciarisation judiciarisation de la vie politique da toog ci plateau télé di wax li ngay wax mën nañu jàpp nga ñu jàpp da ngay génne ne dama am média ñu ne la boo demee xoolal li ngay wax mën nañ la jàpp mais dañuy jàpp nit deful dara man je le rappelle tout le temps man def naa 48 24 heures police te defuma dara quand les gens m'ont posé des questions mooy ban parti nga bokk fan nga woon tel jour mais defuma dara à la fin je me suis posé question mais kii ma jàpp nii lan moo tax mu bëgg ma jàpp mhm. de centaines ñu ngi mel noonu. dans je me rappelle bu ñu la tegee loxo y avait une grande mobilisation sur les réseaux sociaux. mais xëy sax loolu moo tax ñu teel laa bàyyi. mais mais mais pas parce que tey hmm. jii man am naa ay nit ñoo xamante ne euh, euh, euh, fay mii sama camarade de promo la bokkuñu parti mu soña taxaw ne baara sama xarit la libéré ko moo du aw xam na ma. Hmm. mais ba mu ne ñaata Sénégalais jeunes Sénégalais ñoo amul loolu. amul mobilisation boobu hmm. ñu jàpp leen tëj leen seen famille yi nekk dans le désarroi mais les à chaque fois qu'il y a des des des, des jugements de de de de de ces jeunes dans les manifestations juges yi dañ leen di libérer. Mhm. les gens du vous voient qu'ils ont fait six mois en prison des gens qui ont fait onze mois en prison quelqu'un boo xam ne dafa yor téléphone am romb rëbb si ñu ne dafa photo fait onze mois en prison état de droit boobu jarul ñuy ut un rapport pour natt ko ñun Sénégal yi mën nañ ko nattal suñu bopp. Mhm. gis nga le président Macky Sall en 2012 dafa am benn discours bu mu waxoon mu ne moom bu njëkkee ñëwee le chantier obligatoire pour moom du defar ay tali du defar ay pont li mu daan obligatoire pour moom mooy defar un état de droit reconstruire un état de droit nii la ko waxee woon dane état de droit du bâtiment booy gis. état de droit et respect institution la tey jii institution sénégalaise yi dañoo daanu. tey ji sentiment bi nga xamante ne moo li nga xamante ne moo gën a fa si état de droit mooy citoyens yëpp ñu nekk à égalité devant la justice tey gis nañ ne citoyens yi nekkuñu à égalité avant devant la justice léegi nag mhm. fii nga xamante ne fa la ñu fa la ñu fa la ñu fa la ñu fa la ñu fa la ñu nguur gi yóbbu yóbbu daf ñuy dellu en arrière ci ci ci ci ci histoire Sénégal parce que Sénégal aussi bu ñu ko fàtte commencé wul 2012 commencé wul ak le président Macky Sall te du jeex 2024 avec le président Macky Sénégal day continuer mm-hmm. et je pense que est temps. que li ko dese un mois ou deux la meilleure des choses qu'il doit faire mooy libérer l'ensemble de ces jeunes là dans les prisons. Merci beaucoup.